waaye salaam les patriotes ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu wér a wér di leen wax ni leen démb ku ne dégg na audio yi fuité ci groupe whatsapp bennoo boo ko yaakaar yi ñoom ñu ngi naan nañu yuuxu bu baax a baax a baax ni ñoom ñoo gañe donte xam nañ ni ñoom dañ leen a gañe mais nañu yuuxu ne ñoom ñoo gañe waaw man may laaj rek ñoom ñi ñu gañe bu ñu mënee taxaw ne dañu yuuxu ni ñoom ñoo gañe waaye ñun ñi gañe nan lañ war a def mané ñun ñi gagné nan la wara def waye patriote yi taal leen téléphone yi béggee leen ambiance leen yuuxu leen suñu ndam ni amul tiit amul ragal bu ñu ba ay ay satu jop Fall nangu <laughs> ay ñoom Aïssatou Diop Fall laa la wax de bu ñu ba ñooñu nangu ngeen xamante bu jeexee rek jeex na ta mi ngi ñaaw de te day gëna ñaaw ñaaw na ba nopi <laughs> xamna la li leen sonal mo leen rek mooy suñu liste yi nga xamante ne ñoom lañ xeeboon ñi ñu xamul loolu moo leen déranger loolu lañ mënagul supporté ba léegi waaye yàlla xam na ne ñoom sax xam nañ ni ñun ñoo leen gagné mais loolu moo nekk li nga xamante ne moo leen déranger yéen artistes yu fay yi nag maa ngi jàllee jàllale waale benn message fito leen ngeen woy Seydina Ousmane bu ngeen bëggee siiwaat bu ngeen bëggee siiwaat ñëpp di leen dégg péréfitoo leen ngeen woy ko ndax moom lu mu laal a gën lu mu laalul ku ànd ak moom am buzz suñu député yi rek wane nañ ko député yi kenn xamu leen ñu ñu fal waaye Seydina Ousmane moo mel noonu askan wee ko wóolu dañoo gëm ni du dox ci dara caaxaan lu mu laalul baaxul lu mu laalul baaxul ah la preuve am nañu fi deewoon ba ñu fàtte leen de ba ñu ñëwee newaat ñàpp ci kawam ku ne gis nga jamono ji ni ñu mel ci réew mi cër bu ñu am ci réew mi ci sama waa ji kenn du moom. démb ba mu tëllee lu waaye waxoon na ca jaar